sec xalif PS AFP mën nañ ko maintenir ba 2024 ñu am candidat parce que bëri ñu gëm ne Idrissa Seck ak Macky Sall moom seen ànd àndu naxante la ah Idrissa Seck day c'est la catastrophe du siècle honnêtement man j'ai l'impression que ne en politique Idrissa Seck a une mentalité prélogique c'est-à-dire a une mentalité primitive vous voulez que je détaille hmm. tuuti alors Hegel dit c'est Marx qui fait dire à Hegel que les grands événements pour ainsi dire les grands hommes apparaissent deux fois au cours de leur existence mais Marx mooy ajouté ne Hegel a oublié de dire que la première fois sous forme de tragédie et la seconde fois sous forme de de farce. Ah, exactement loolu la Sidi Lamine Niass doon wax sax la farce de l'histoire Idriss bi ko Ablaye Wade tëjee fii pour ay raisons chantier de Thiès on savait que c'est pour des raisons politiques ñëpp jàppale ko ci ba muy dem di seeti Ablaye Wade à midi dafa jaaxal ñëpp parce que boobu élection 2007 yaa ngi ñëw tout le mone disait que Idri mooy remplacer Wade xaw ma naka la naka la ko Ablaye Wade naxee ba woo ko pale à midi Idri Seck jël gàngaro gépp dem wuyu ci Ablaye Wade utiliser ko nax ko 2012 c'est la même chose il refait l'histoire pour venir dire à Ablaye Wade ne ko yow amatoo droit présenté wu candidat devant le comité directeur tout le monde a applaudi mais après fan la mujj fenn Ablaye Wade utiliser ko nax ko mu nekkaat di galérer ànd ak Macky Sall mut baa mott mu ne mot moo ma gënal mut les on ont applaudi fan la mujjaat tey man ak Macky ko Mburok Sow j'ai l'impression que ni Idrissa Seck apparaît deux fois dans son existence les premières fois c'est sous forme de tragédie mais les secondes fois c'est sous forme de farce parce que li ñu gis temps yi rek vraiment farce la yekk conseil constitutionnel lu ne yekk président Macky lu ne xëy benn jour rek ne man maa waxoon lii léegi lii laa wax mel ne nit ñi ñun ay dof lañ quoi dañuy wax dara rek ñu gëm. est-ce man je que c'est pas. péjoratif hein c'est pour les besoins de l'analyse man je suis sociologue su may analyser je fais appel à l'histoire mais aussi aux méthodes comparatives n'est-ce pas donc dans l'histoire Idriss Seck l'histoire a montré que Idriss Seck fait toujours de mauvais choix toujours de mauvais choix dem nañ élection 2019 génn mu nekk deuxième depuis kañ mu ngi muñ depuis kañ la jógee état 2005 ba léegi kenn tegalu ko parapheur mu signé signéwul benn décret signéwul benn arrêté di muñ 2005 ba léegi bokkoo ci état nga dem élection 2019 génn nekk deuxième yow demaguñ fenn bu ñu woon élection dans un an la sax ñu mën a wax mais demagoo fenn ñu naxati la woowati la dig la conseil ak lu ñu la mën a dikk nga jàpp ne Macky Sall. doon texte bi la jox comme prétexte. non loolu prétexte la sans lui hmm. sans lui on vaincra le Covid la Covid sans moom loolu prétexte la rek man je suis un de santé. sant moom on va vaincre la Covid 19 du ci dara. mais est que il ne par rien nous apporter. mais ki leen jàngal politique Abdoulaye Wade dafa waxoon ne en en politique les vérités de de de midi mën na bañ a nekk les vérités peut-être du soir est-ce que du xëy na politique aussi moo laaj moom Macky Sall ñu def coalition pour peut-être retrouver xëy na famille libérale. waaw léegi moom buy dem il est libre de partir ah Idriss Seck bu ko neexee mu toog mu xool mu ne damay dem ànd ak Macky mais justification yi mu joxe. moom moom loolu la ñu d'accordul quoi moom moo fi waxoon ne signé ak yow mais ba mu koy waxaat naka la ko waxee maa waxoon ne wala fasatuma yee ne genre yooyu quoi mais ñun duñu ay ay coomo quoi. léegi son avenir politique man son avenir politique kay xaw